يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من هداك سندا bu baax comme ni ñu ko doon waxee rek sànq ba tey yaakaar naa dalal nañ fi ay jëriñ yu bëri tey dañu fi dalal ki nga xam ne mooy jëriñ nga xam ne moo yor mouvement bu mag boobu ci euh, kër Cheikh Abdou Bakhe Mbacke lay suñu wet euh, di dalalaat nga xam ne mooy Mélodie nee naa la kenn la ci kër Cheikh Abdou Bakhe Mbacke ndax nee naa la képp kuy nasaraan rek foox ak foo mënti nekk ci àdduna bi mooy defal leen suñu plateau bu yaatu bi lépp rek pour waajal li nga xam ne mooy màggalug Daaru Salaam gi nekk ci guddig maam Cheikh Ibrahima Fall gi guddig maam Cheikh Anta gi di waajal màggalug Magalub euh, Daaru Salaam jëwrin jëwrin Ibrahima maa ngi lay nuyu. ah soxna ñu ngi lay fay bu baax euh, ah, euh, mbokk jullit yi mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay. ginnaaw ba nu ñaanalee xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Serigne Touba gi yëpp di ko ñaanal tamit ki nga xamante ni moom lañ àndal muy Serigne baax Bakhe Mbacké mm-hmm. yàlla dëgëral ay cëram yàlla yokk fanam yàq yàlla wéral yaramam ba li mu bëgg liggéeyal maamam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lépp mu liggéeyal ko. comme li nga wax rek euh, maa ngi tudd Ibrahima Lam ñu mbokk taalibe yi fii gën ma di ma woowee Khalil Khalil Baaxe nekk tamit le président du mouvement MJK 6643 waaw di nekk rek nga xam mouvement bi au delà. li muy nekk di dox ci mbiru jàmm yooyu boo xoolee Magal Darou Salaam tout ce qui est organisationnel mouvement bi moom moo ko moo ko yor. muy côté organisation ci bâche bi muy côté collation côté lépp lépp rek euh, organisation de façon général mouvement bi moom moo ko moo ko yor daal. waaw ma ànd ci ak mbokk taalibe dañuy gis euh, si euh, mouvement bi nga xam ne mooy 6643 depuis bi mu ñëwee ci kër euh, Touche Abdou Baaxe bi màggal gi dafa gën a taaru taar boobu lan da ngeen a diisoo ci seen biir ndax ni ñuy taxawee ci biir baas bi benn débordé du am ñëpp nekk mooy seen secret ba màggal gi bu dikkee ngeen taaral lépp. waaw comme ni nga ko waxee mouvement bi sëñ bi moo ko moo ko lancé ca mi ngi ko lancé c'était en màggal de màggal Darou Salaam 2014 bu fekkente ne sama xel naxuma 2014 ca li ci sëriñ bi jublu woon tamit loolu daf ci bokk Euh, mu nekk mouvement boo xamante ni day dox ci mbiru jàmm côté tamit social dimbalante te yaakaar naa loolu xam nga ci dara ndaxte am na ci surtout daara bi nga xam sëriñ bi doon na fa jànge ñu demoon fa am ay ndimbal yu mu fa yóbbu woon mais comme que sëñ Abdou Baaxee lépp léppam day organisation léppam dafa tegu ci luy jaar yoon maanaam mu tegoon kuréel googu ba pare dénk ko mouvement bi ba mu ko dénkee euh, dënkuñu ko ba pare jël màggal gi tamit dénk ko mouvement bi lu jëm ci organisation bi ba mu ñu ko dénkee tamit mouvement bi tamit du n'importe qui tamit ñoom ñoo ci ne euh, parce que au la que ñu nekk ay talibé mouvement bi dafa damay wax ni dafa am benn ressources humaines de qualité boo xamante ni daf ci ne. parce que am na ci ay ingénieurs ko ci mel ni secrétaire général Baye de Seck ingénieur la euh, en génie civil am ci ñoo xamante ni ay agent comptable lan am ci ñoo xamante ni ay jàngalekat lan professeur comme par exemple euh, man mi bu fekkente ni dañu dénk lool noonu sunu yitte day nekk ci li nga xamante ne moo nekk ci suñu bopp nekk ci sunu xol nekk ci suñu xel ci luy taaral ñu jéem koo teg ban ko defee nag boobu ba tey wax dëgg fa yàlla ni nga ko waxee depuis 2014 képp koo xamante ne yaa ngi ñëw kër sëñ Abdou Baxé di gis bi ni muy doxee ci côté organisation ci côté bâche bi ci côté collation côté waañ bi ni ñu koy organiser ba nga xamante ni benn désordre du ci am wax dëgg fa yàlla loolu ginnaaw ba mu ban ci ban ko ban koy réussir à chaque année dañ ci gërëm bu baax a baax tamit tamit euh, sëriñ bi ngir amaana ñaanam rek moom moo nu ci moo nu ci fekk daal waaw loolu rek moom moo ci nekk. lan ngeen di préparer saa bi suba ci màggal gi ndax euh, yaakaar naa at yi jàll yëpp da ngeen a kon yaakaar naa tey ci guddi gi nga xam ne ñi ngi waajal suba ñu nar fa seen dugg ci màggalu Daaru Salaam lan ngeen di waajal suba. waajalee chaque année rek noonu lañ koy waajalee xam nga Serigne dañuy wax ñu ne maanaam subaam bu nekk gàccaal na tayam mouvement bi tamit ñun noonu lay doxee te it wax dëgg fa yàlla ñi nga xamante ne ñoo ci nekk di ci dox di ci yëngu bu wér a wér ci ni ko sëriñ bi bëggee à chaque fois ku fi ñëw di nga xam ne maanaam mouvement bi li mu tegoon daaw teg teg na lu ni ren wala mu tew mu teg lu ko faw xa ci tamit loolu la ñuy ñaan bu bu subaa tamit noonu lay deme ndaxte dafa am organisation magal gi dañ ko diviser en euh, commission dafa am commission collation am commission accueil am commission hébergement am commission bâche am euh, commission ci côté sécurité beeg yooyu yëpp parce que waa sécurité bi yooyu yëpp ci mouvement bi lan ne te ni nga ko waxee commission bu ci nekk dañ koy reconnaître à travers ay badjam badge boo gis ku ko takk rek da xam ni kii ci commission bi la ne yow boo demee bâche ña fay fekk ñu takk seen i badge seen i da nga xam ni ñii waa lan bu dee waa collation mooy ñuy séddale mbiru fruit yeeg mbiru boisson beeg yooyu da xam ne ñii waa collation lan te kenn ku ci nekk tamit fay sa commission foofu ngay ne doo fa génn wala ngay dem ci feneen bu demee nag ba ci biir bâche bi nag ci guddi gi nag waa bâche dëgg la ñooy koy gere waaye dañ ciy ànd ak ñoom ca commission bu ne it dañ day am koo xamante ni moom la ñuy teg ca ca bopp ba mu mu mu gérer loolu comme ni nga ko waxee bu déwee na daal bu subaa daal incha allah rabbi ci suba gi dina am ay ziar auprès du de Serigne Abdou Baxé maam daal di ñëw ziar euh, ngoon après bu deux heures ñu def euh, bernde euh, ngoon gi tamit dina amaat ay ziar ndaxte daayira yi dafa xaw a bëri guddi gi après ñu teg euh, organisation ak programme ci guddi gi nga xamante ni jëwriñ Moustapha Amar moom moo koy gérer quoi. ko waxee jëwriñ ji nga xam ne moo jiite si 1643 nañ ci dara. ndax ànd ak ñoom ñun ñoom nga xam ne mooy ngaay dem ci daara ja yóbbu yu bëri jox ko ñi nga ñooy taalibe yi sa buñ ne daara jooju ci ngaay rek xam ne suñu yaakaar tey ëllëg ci Abdou Bakhe jaar na fa bu baax di ko gërëm nee naa liggéeyu Cheikh Abdou Baaxe Mbàkke bi jàpp na ci loolu ndax man bi ma koy dal di dégg boobu xale laa ñu naan ko dafa jëm ci am boobaak dafa gën a jàpp dafa gën a kon macha allah baax di la ñaanal yàlla li nga xam ne moom ngeen nar a sumb suba yàlla may leen ci ndam ci barke Seydina Mohamed macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax xaal ñu jox suñu jëriñ di suñu wet micro bi mënoo voilà Anta Seye <laughs> waa jëriñ ñu lay nuyu maaleykum salaam yaa fi mën naa ne nasaraan si tey boo ñëwee fii tey ci ëttub Cheikh Abdou Bakhe Mbacke war na la mën a nan ngeen doon waajalee màggalub Daaru Salaam surtout yow mi nga xam ne yaa ngi Sénégal ak Cheikh Abdou waaw premièrement ay différentes si man maa ngi fii Sénégal wala si man maa ngi extérieur même bu nekk extérieur man maa ngi extérieur dégg la dama dem si waaru liggéey ba amee xewul joxe sama adieu sama saas e, ba waxtaan ak dimbale nit yi e, nasaraan si si si liggéey ak si mission Baye Abdou Bakhe Mbacké mooy suñu yaakaar fii ak fële tey ak ëllëg hmm, wasila am na solo wasila am na solo loolu loolu ñëpp day ko xam fii Sénégal mais si nasaraan loolu c'est pas forcément ñëpp ke day xam il faut suñu borom yàlla moom day la day la boole euh, si njabootu Serigne Touba Khadimo Rasulilaay man gis naa ko lu bari Serigne sama xol dem na si Baye Abdou Bakhem Mbacké quand dama gis moom xam na kooku moom sama wasila sama yaakaar dama jox sama àdduna ak sama bakkan jox lap lépp des fois day métti des fois méttiwul mais toujours góorgóorlu toujours day xam ñun am nañ seen ñaan ñaanu Céline bi moom ça vaut tout l'or du monde ah Euh, tu me donnes des millions ou tu me donnes le ñaan du Serigne bi je choisis le ñaan du Serigne bi barke borom gaawaan ma magal si ma maa ngi fii e, fii Sénégal ba man dongo la xasaay mhm. ah kon lu bari talibe fii ñu ngi dem Majal Majal ay Keul ay carte Barkelou mhm. yaay faali souvent day dem ak carte Barkelou wala carte soutien ay Baay Faal akasa day dem akasa ak oto yi day oto day loué e, e, rajo yi day dem contingent yi ay investissement personnel ah si yow yaa ngi joxe lépp si sa wasila sa wasila day la jàpp yow du manqué dara moom du manqué dara si Serigne bi xolam dafa fees suba ñu ñëpp mbokk taalibe ñun ñëpp suñu xol day fees loolu rek chaque jour chaque jour que Dieu fait yow danga dem laaj nit adieu Serigne Touba adieu borom gaawaan ñu ngi waajal magal gi le grand retour d'exil de Cheikh Amadou Bamba après sept ans sept mois sept jours d'exil il est il a il est pas venu ziar aucun de ses frères seulement Mame Cheikh Anta Mbacké le premier Moutar magal gi mis à part le grand magal Touba maa ngi jégalu bu weer mais pour man am na importance am na solo magal Darou Salam ah pour man deuxième position après Magal Touba. macha allah macha allah alhamdulilah. comme ni ko waxee rek nee naa la Cheikh bu baax nag am na taal fépp ci àdduna bi. kon dañuy kontaan bu baax nga xam mooy plateau bi ñu amaloon tey di waajal dem suba ci Magal bi incha allah. te dégg nga nga xam ne mooy suñu jiw ndax nee naa la ku baax la yàgg na ñoom moom. sa nii mu mel rek noonu la mel ak yu bëri ko macha allah di ko ñaanal fu mu bëgg a egg rek yàlla fa egg ci barke maam ci barke Cheikh bu baax ñaanalaat mënadi may ko li mu bëgg euh, borom këram bi mu nekkalit dëgg may ko ci ndam waaw comme ni nga ko ni nga ko waxee rek euh, soxna Mélodie Anta Seye moom maanaam képp koo xamante ni yaa ngi ñëw kër sëñ Abdou Baaxe xam nga ko ca li wax ci mbiru tarbiyaam ñun fekk nañ ci lu bëri ci it am na loo xamante ni dundandoon dundandoo nañ ko ak ak moom quoi mu nekk te yemut ci moom kese ay nasaraan su su bëri la ca ñoo boo xoolee ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom tey sëriñ bi daf la utal borom kër ci ndongo yi am na ci keneen koo xamante ni maam Cheikh sëriñ bi da koy jël jox ko soxna ci yaay faal yi instant bi mi ngi mi ngi Espagne xam nga ci Baye Fall yi it am na ñoo xamante ne tey ñu ngi Espagne ak seeni i soxna te loolu lépp boo xoolee ñooñ muy soxna muy soxna yooyu noonu nga xamante ne mooy ay nasaraan ca sëriñ bi jël leen jox leen ci euh, mbokk taalibe yi koo ci xool tey benn rek bu mu wax ni muy soxna euh, kii soxna Anta Ndiaye muy soxna maam Abdourahim mm-hmm. kooku bu mu saan toog bay jàng xasida mm-hmm. da da ngay yéemu wala muy toog di jàng alxuraan da nga yéemu barke rasulaay seulement ni mu ni mu ko teelee maîtriser ca du ko jàng sax di ci gagantu billaahi walaay azim moo nga xam ne kon loolu Serigne Touba rek moo man moo man lu ne quoi waaw te ñoom it ñu ànd ak sëriñ bi ci ameenam bu rafet ànd ak nit anam bu rafet waaw ñuy gën a soññaat mbokku taalibe daal ñu gën a jàppaat gën a fonkaat xam ni Serigne Touba boo koy liggéeyal Serigne Touba boo àndee ak moom dangay xam ko sax amaana du yomb waaye da ngay am loo ci xaw a fort tuuti rek mu mu servir la xam nga de de repère mu servir la de référence mu servir la de lumière à ce que yow fi ngay teg sa tànk ak ni ngay doxee nga mën koo xam ba boo jëfee wala nga wax ñu ni a ah, kii de ndongo Serigne Touba la ci sa kaddu ci sa waxin ci sa jëfin ndax Serigne Touba dafa nekk koo xamante ne amaana comme que moom def na loo xamante ni diine doo gis ko ko def kon koo xamante ne da nga ne taalibi Serigne la jëfee wala nga waxit war nga mën a maanaam euh, yëkkati sëriñ bi donte yàlla yëkkati na ko waaw donte yàlla yëkkati na ko nga yëkkati ko wala nga bañ ko yëkkati moom yàlla yëkkati na ko ba pare waaw kon nag ñun yow loo ca def lu nekk rek la sëñ Abdoulaye la wax waxoon bëri ko ci mbartal la boo tegee sa loxo day dem boo ci tegul sa loxo day dem waaye teg sa loxo ba buy àgg fa muy teere maam sa loxo àggale fa kon ñuy soññaale waaw ñuy gërëm ñëpp rek waaw jërëjëf soxna Ami jërëjëf ñëpp kontaan nañ ci kontaan bu baax a baax di waajal màggalu Daaru Salaam rek ba suba insha allah jaajëf yaa sayyidi yaa Mustafa yaa sannada salla alayka